retour sur le plateau matinal Allô Sénégal juróom-ñetti waxtu yu toftal ñaar fukki simili ak ñeent daal dinay jot ma dalal Kajoor Cissé mu ngi ci plateau bi Kajoor maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Aïcha di nuyu euh, Pape Malick di sant yàlla ñu may ñu tal fekkee di nuyu mbokk yi ñuy teew. Euh, dalal ak jàmm ñu dalal Pape Malick Thiam Pape Malick maa ngi lay nuyu. Ah, Aïcha maa ngi lay fay euh, ce matin di nuyu Kajoor Cissé aussi di nuyu bépp téléspectateur bu ñuy seetaan. dal leen ak jàmm la revue web dañ koy tàmbalee Kajoor ak arrestation euh, bu candidat bi di Thierno Cissé ak la nga xamante ni conseil constitutionnel wax na ko. IGFM moom moo nuy xamle lu ni mel loolee nag démb la xewe foofu ca conseil constitutionnel muy lu bett ñu bari muy lu doy waar itam moom Thierno. Euh, Cissé moomee nag la ñu daal di teg loxo ginnaaw ba ñu nemmeekoo njuuj njaaj ci wàllu parrainage maanaam ay liste yoo xam ne daf ko euh, présenté foofu ci ay député yoo xam ne daanaka euh, ba ñu vérifié ci liste quatorzième législature bi amul kenn koo xamante ni kii bokk nga ci liste yooyee mu présenté loolee waral nag. ñu daal di koy teg loxo division des investigations criminelles la ñu euh, sàkku moom moo ko daal di teg loxo foofee ca conseil constitutionnel ginnaaw nag ba ko procureur daal di euh, sàkko moom nag euh, li nga xam ne moom mooy article yi ñeel L cinquante sept alinéa huit ak L quatre vingt onze bu moom moo dàq li nga xam ne moom la def ba tax na nag. li koy xaar ci daan mën nañu jàpp ne euh, dina tollu ci diggante euh, benn weer jàpp benn at yu mu yuñ ko mën a tëj ak euh, lu toll ci dix mille jàpp cent mille francs ci ndàmpaay yoo xam ne. Mm. Euh, dina ko joxe ginnaaw ñaaw teef yooyu nga xam ne moom lañ koy tuumaal bis bu ñu ko euh, dëggalee. ñu dem fële ca Podor Kajoor mu mel ni am na ko fa ñàkk bakkanam ci anam bu doy waar. waaw anam bu doy waar la ko ab charretier la boo xam ne euh, daf dañ ko doon dàq ji waa duwaan ñoo ko doon dàq ji ca noonee nag lañu ko jamee moom nag ab ndaw la boo xam ne mu ngi nekk foofee ca takkoyal nekk ca Podor. Podor ay atam toll ci fanweer ak ñaar muy wuyoo ci turu euh, Amadou euh, Diop mbir mi nag mu ngi xamee fële ca île euh, à Morphil foofee lañ ko doon dàq jee ginnaaw ba mu yebee ci charrette ba mu yoroon lu ay bidon yu bari yoo xam ne ay bidon yu dawlin la naka noonu ay saaku suukar mu mel ni ku doon fraude mu yeb nag ci duwaañ yi yi di ko dàq ji ngir mën a nangu loole nga xam ne euh, moom la yor muy patrouille boo xam ne douanier yi la ñu doon euh, liggéey ci gox boobule euh, ñu dàq ji ko nag ginnaaw loole la am kenn ci agent yi ku sox bal charrette bi loole moom moo ko dal di daal ba mu daal di ñàkk bakkanam ba ñu koy dàq ji nag après ci la brigade de gendarmerie bu Demet dal di intervenir ñu arrêté dàq ji bi ñoom ñu daal di tijji ak l'enquête nag ngir leeral yëf yi. Coupe d'Afrique des Nations 2023 euh, le vainqueur nag dina am euh, 4 milliards de francs CFA. waaw loole moom mooy euh, njëg maanaam euh, koppar gu takkoo takk goo xam ne daanaka dafa yokk ci 34e édition bi nga xam ne moom mooy euh, kan bi. confédération africaine bu football moom dafa dal di yokk loxoom ci ndàmpaay yi nga xam ne moom la nuy jox ki jël raaya yi nga xam ne daanaka Sénégal moom moo ko yor ginnaaw ba mu ko jëlee euh, bi euh, weesu koppar gi nag sept millions de dollars la boo ko xaymaa ci sunu koppar moom mooy nekk quatre milliards virgule un euh, ci sunu koppar franc CFA mu nekk rek. 40 pour cent. ci yokkuteef euh, ginnaaw ba ñu ko méngalee ak euh, li nga xam ne moom la euh, Sénégal amoon ca atum 2021 ba muy jël Coupe d'Afrique bi foofee ca Cameroun ñu ñuy xamal nag ni 4 millions de dollars yooyu soit 200 mille de 2 millions. deux milliards euh, la ñuy euh, am finaliste bi maanaam ki nga xam ne moom moo doon jongante ak ki gagné moom mooy am loolu ñi nga xam ne ñooy demi finalistes yi danañu am un milliard un virgule quatre milliard euh, ñeenti quart de finalistes yi ku nit ku ci nekk di nga am sept cent à 78 millions 800 mille euh, francs CFA loolee nag nekk euh, yokkuteef goo xam ne euh, ginnaaw ba ñu ko méngalee ak Sénégal ba mu koy jël nga xam ne mu ngi toll woon ci 5 millions de dollars maanaam 2 milliards 900 moom la Sénégal amoon mu mel ni rek dafa yokk suñ sukkandikoo nag ci ki nga xam ne. moom mooy Patrice Motsepe mi nga xam ne moom moo mooy président wu CAF nee na loolee euh, koppar yooyu ñu yokk dañoo liñ ci jublu lenn rek la mooy gën a sukkali footballu Afrique. bu nu jógee ci loolu ñu dem fële ca États-Unis daal di ko fay jeexalee ak fusillade ba fa am. ab fusillade la boo xam ne ci ab lycée la amee foofee ca États-Unis ab xale bu góor boo xam ne ay atam mu ngi toll ci fukk ak euh, juróom-ñaar moom moo yoroon ngànnaay loolu yi nag démb ci suba la amee woon euh, ca ab école boo xam ne mi ngi nekk ca Iowa foofee ca États-Unis mu faat nag euh, app ndongo. bu nekkoon ci collège bi foofu ak yeneen juróom yoo xam ne dañu ci jëlee gaañu gaañu ci tiir yoo xam ne sox yoo xam ne xale boobee daal na koy euh, sox ka xam ne nag euh, di Mitch euh, Morvet moom mi nga xam ne responsable la ci gox boobee ginnaaw ba mu doon jano ak way taskatu xibaar yi la mu xamle nag mooy Euh, ba mu defee lu ni mel dafa am jële fa gaañu gaañu boo xam ne euh, daanaka moom moo ko teg boppam loolu nag nee nañu euh, façon waxin la rek buy wane ni ginnaaw ba mu defee jëf yu ñaaw joojee dafa dal di faat boppam waaye ba ba ko agence France Presse laajee ba xam ndax kooku def jëf yu ñaaw joojee dafa ñàkk bàkkanam ñoom ñu ci yàbbi maanaam joxuñu benn leeral ci li nga xam ne euh, moom la xale boobee def la mu ci yokk rek mooy euh, ba jamono ja muy euh, def ñaawteef googee amoon na ay mbir yu mu bindoon ci ay réseaux sociaux waaye ba léegi itam moom kilifa États-Unis boobee fësalul lan la bind ci réseaux sociaux yooyu te mu ñeel nag jëf ju ñaaw joo nga xam ne def na ko ba mu mhm. faat benn bakkan ak juróom yi ci jëlee gaañu gaañu doy na waar jërëjëf Kajoor ñu jaajëfal bu baax a baax ci xibaar yi am na solo rapidement rek ñu commenté euh, xibaar bi ñeel candidat bii di Thierno Cissé sa doom baay la Cissé la sant hmm. loolu moo ci métti suba bi nag Cissé yi nag yàq na der daal xam naa ne lu gars yi raxasoo moom moo koy mujj naan c'est dommage <laughs> mais bon c'est c'est un peu c'est ça ça ça fait rire mais en même temps ça énerve parce que on n'est pas en train de jouer quoi camp campagne électorale euh, président élection présidentielle la ñu wax euh, bu doon da doon foo je sais pas lan moo ne ci ginnaaw euh, moi je veux bien comprendre lan moo ko dal quoi parce que Euh, nga war a nekk noonu ba à ce point là et puis euh, je sais pas manque d'intelligence la wala yabaate la wala lu mu war a doon parce que yow bu fekkee euh, parrainage élu ngay def euh, député yi bëriwuñu fii ci réew mi te et puis ñi ñi def parenage des élus aussi ñoom tam bëriwuñu donc yow munoo def loolu ba ba nit ñi bañ ko gis bañ ko gis maintenant un attend de voir parce que comme euh, mbir mi ba léegi leeragul il faut mm. ñu déglu au moins ñu xam moom lan la si jublu et puis quelle mouche l'a piqué quoi <laughs> ah, ko euh, je sais pas moi il a quelque chose dans la tête wala euh, je ne sais pas parce que euh, nga bëgg a ñëw conseil constitutionnel déposer ay liste député yoo xamante ne c'est inexistant loolu bon c'est un peu c'est un peu bizarre. Hmm. Euh, peut-être enseignement bi ñu ci mën a tirer moom mooy def de telle sorte ko boo di jéem a durcir processus bu nga processus électoral ba nga xamante ne loolu du mun a am genre moom ay filtre ay reconnaissance faciale yoo xamante ne. Euh, c'est possible nga xamante ni ku ku ku kenn mënul jël étape presque jaar cinq dix étapes euh, ñëw foofu déposer conseil constitutionnel te te kenn du la jàpp euh, malheureusement nu ñuy retirer fiche de parrainage dafa yomb. Mhm. nu ñuy déposer caution tamit li ma jaaxal moom mooy déposer na caution trente millions. donc ah. euh, ça que moom. Euh, voilà peut-être aussi tamit dafa dem ci waa descendre sur le terrain out ay parrain xam nga ay parrain moom yombul. pour ay parrain peut-être amu ko mu ne bon sama pexe peut-être pour mu ci génn naa def loolu mba mais bon quoi qu'il en amul woon benn moyen pour pour pour mun jàll et c'est dommage comme Kadia Cissé lu mu wax rek bon on attendra pour voir bon lan mooy mobile le fait que voilà le fait que mu dem conseil constitutionnel bëgg a bëgg a bëgg pour man moom ba loolu moom su passé woon moom dina nekk lu a grave. am na solo justement euh, vu que fi mu jaar bari na dem ba conseil constitutionnel ñu démasqué ko dafay wane ni que foofu aussi euh, liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñu ko fay amal. ci côté contrôle bi. non en fet boo loolu Aïcha mun woon mënu woon jaal le fait que nga andi liste treize députés. yoo xamante ne sont des députés inexistants à l'Assemblée nationale loolu mënul nekk fii ñu fi amee ay député xam nañ leen waa PASTEF la waa PDS at euh, camp au pouvoir bi ñoom ñoo fi am député pour pour parrainer candidat te ñoom ñëpp xam nañ ban façon naa leen def loolu mënul mënul nekk bu amuloon benn moyen pour jàll sinon bon ma wax ne état fantoche la ñu yor mais mais li nga wax nii ma je je serai pas d'accord mm. par rapport ak contrôle bi ñuy wax il y a problème il y a problème par rapport à ces parrainages là parce qu'on peut pas se retrouver avec plus de mille parrains mm-hmm. yoo xam ne dañ la ne nekkul ci fichier bi lii mooy urgence d'ailleurs de maa ngi gis Mimi Touré naan dafay porter plainte avec des preuves il problèmes il y a problèmes loolu moo tax mu mu urgent que ñëpp ñu ñu am du fichier électoral man j'ai un un cas précis boo xam ne ñoom bu ñuy waxee damay damay dëgg lool parce que j'ai une sœur boo xam ne euh, moom mus na voté mais mais ka kii wam ba léegi. Mhm. dañ fay dañ fe dañ dañ dañ fa lieu de vote mu ngi foofu et mais dañ dañ dañ ne liwul dañ ne euh, nekkul ci fichier électoral bi au nom de quoi. lan nan nan la ñu génnee ni ci fichier électoral bi koo xam ne yow amoo benn contentieux tu as une fois voté après nga ñëw ñu ne fichier surtout nekkul ci fichier c' est des cas comme mhm. ñu ñu xool. alors dinañ ko dinañ ko gën a yaatal justement si euh, ponk bu njëkk bi Pape di waxtaanee ci politique bi euh, ci parrainage bi coow li bari na Kajoor loolu moom dëgg la euh, loolu dëgg la dinañ ko waxtaanee léegi léegi donc bu baax bi noppee rek ñu dikkaat ànd ak Pape gën a yaatal xibaar yi li nga xamante ni wàllum économie